mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi dellu siwaat ci seen émission bu mag bi le grand débat di leen ko amal fii ci seen site bu mag bi di Allo Dakar TV international ki ñuy dalal tey nag muy doomi Joson ñu koy wax Momar Touré. li ñu war a réparer ci constitution Sénégal duut affaire troisième mandat gis nga affaire trois man président liggéey lañ koy defee Macky Sall moo liggéey Sénégal bañ ñëpp xam ne liggéey na Sénégal. français yi bëgguñ suñ téere bi bëgguñ téere alquran gëmuñ suñu yonentu bi te ñoom ba tey éducation Sénégal bii ba tey union européenne ñooy wax li ñoo jàng ñooy wax ni ñu koy jàngee ñoom ñu ngi ci